nee na fii ñu ñëw tey. suñu kër na seen kër la. damay faral wax ne. nee na day faral di wax ni. fu mu dem. ci xayra ci xayra. dama naan ko danaan ko moo ko moom. waaye fii moom. fii moom. mooy xayra. mooy xayra. nit ki. nee na ca nit ki. boo toogee ki nga xam. boo toogee ki nga xam ni sab ab yow ab cërëm nga. ko bu baax a baax. ndax léppam xayra la. bu nee lépp na bu nee lépp nag. léppay dugg ci biir ndax lu lu ma am. ndax lu mu am. ak lu ma mel. lu mu mel. sëñ Modou Boussa ko ni def. lu ma mën a melal nit nee na nu mën a melal nit it. kam ko melaloon démb kam ko melal kam ko melaloon démb it. sëñ Modou Boussa na ca duutu ko ni melalaat ci àddina. nee da koy melal ay nit rek. waaye kon nag tey. nee da koy day seeral loolu waa xayr nee na bu doon jigéen soxna awa lay tudd ndax soxna awa yi fi nekk gën koo ñor ci soxna awa yi na kon bu sëriñ du nekkee ci leen nee na ñun ñëpp danoo war a bokk dugal sunu loxo waxuñu nag ñu ne ko xayra la sédde nee na kon ñun ñëpp dañuy ànd jàpp ci rek dugal ci sunu loxo ñun ñëpp. ñaan li ngeen bëgg. ñaan yal na leen ko yàlla defal. yal na sunu borom defal. di njiglaayal président. de la république de la bu Sénégal. nee na wax dëgg yàlla soxnaam wëllëreem la de. nee na daf koy teral. ñiy terlante. nit nag ku la teral. ku ne. da ko bëgg ni nga bëggee teraanga. beeg nee na yal na yàlla ak bi ak jëmmi seex Moodu Moustapha. ak Serigne Fallou defal leen li ngeen bëgg. defal ndax 93 bi ñu na ndax 93 bi mu àndee sëriñ Serigne Moodu. ak sëñ Cheikh Astou Faye. ak ñu dem ca Abdou Diouf. nee na ñu dem ca Abdou Diouf. ba mu recevoir. ba mu leen recevoir. ba nu waxee seen soxla ba noppi. nee na sëñ da ko ne loolu dong nga yitte mu ne ko waaw. bul sonn bala maa ñëwaat ci sa bureau bii dañuy wate da wate gañe waat ma doog a dugaat sa bureau bi est-ce que. sant naa leen gërëm naa leen ginnaaw bu loolu jàllee nag may wax sama engagement ci président Macky fas naa yéen a pour wate yi yu jëm mu gañe Touba gañe gu leer naññi nag waaw. ma ñor moom laay dox guddi ak bëccëg di gërëm Serigne Modou Bara Doli di wane suñu engagement ci président Macky Sall jaare ko ci Serigne moo du Doli ndax moo ñu dugal ci politique bëgg ñu jàppale président ñoo ngi ci ñoo ngi ànd ak moom guddi ak bëccëg muy taw mbaamu naaj te duñ dëpp duñ arrière engagé wu nañ duñ dëpp duñ arrière te dara mënut a tax ñu arrière waaw. li ñuy ñaan nag waa asalem gépp bu vote jotee ñu génn voteel président Macky ndax président Macky gañe Touba mooy li ñu ñor waa asalem ak waa Touba sur ndax asalem mooy waa kër Cheikh Abdou Lahad ñooy samay mbokk di sama néegum nday moo tax ma ni fii koy defee ñi ngi leen di nuyu di ñaanal Serigne Mountakha Khadimu Rasoul mu yàgg fi lool ci wér moom sëñ Dan Abdou ak sëñ Xaasim Dieng moom sëñ Dan ñu tegal ma ko nuyoo boobu ci sëriñ Dan moom sëñ Abdou Lahad moom sëñ dana am lu ma leeral fii bala may jàll ndax bi ñu dugg ci asalem ci moom lan njëkk taxaw siyaare ko mu jël wax ne jox ay ndigal soxna maam Asta moom sëriñ Sidi la ko firndeel muy signature bi mu jël doomam soxna maam Asta teg ca ak Serigne Xaasim Dieng kon loolu mooy signature bi moom nag kenn la ci dëkk bi kenn la ci njabootu xaadimu rasul sëriñ Touba rek ko ñor ca lépp loo xam ne ki fi nekkal Serigne Touba ñor na ko loolu ci lay dox moo ko ñor a ah, di wax ne soxna maam Assa maag délégation bi ma dal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm ci engagement yi nga def jëmale ko ci président Macky sàll wan ne da ànd ak ñun ñu fas yéenee liggéey ngir jàppale président Macky sàll relève boobu war nañ koo bàyyi ci ay loxo yoo xam ne nii tamati ëllëg waxuñu rek ngay ànd ak sëñ moo di continuer ànd ak sëñ Modou déedéet danoo ñaan yàlla ci sa kàttanu maam ngay dox ba ba ba ca kanam nga bokk ci ñi di séddee ci dëkk bii nga bokk ci député yi député sañ Tuubaa ci dëkk bii ñu ñaan ñu dem ba ca kanam ngay taxawal ay yeneen yeneen nit yoo xam ne nii ay nit lan yoo xam ne ëllëg dañuy doon ay député wala ñu doon ay ministre wala ñu doon ay leneen. léegi nii la vote bi di demee cinq candidats la yéen ngeen mën koo jël ngeen voté ko ci anam bu gaaw ni ngeen koy defee nag c'est simple nii ngeen di def ci enveloppe bi su ngeen paree bu ci kenn jël sa làmmiñ di ci teg pour coller day du compte mais mën a jël kubéel bi comme nii ñu koy rek ngeen def ko nii ci biir enveloppe bi mu tëjaale compte bi ngeen jël ko ngeen mujj ko dans ci bi

yéen laay waxal na ngeen bàyyi xel ne juróomi candidat moo am juróom yooyu nag da ci am benn bu am solo am yeneen yoo xam ne faaw ma leeral leen ko bi nga xam ne moom lañ xamal bi ci am solo ca mu am lu nekk ci saako bi ba noppi ngir ne am na lum liggéey senegal yi ndax kenn ku ne mën naa wax dara Macky Sall waaye ñaar yi moom kenn mënu ko wax loo mooy kenn mënut a wax ne liggéey ci réew mi mi ngi liggéey ci réew mi loolu kenn umpale wu ko. beneen ba ci tegee kenn mënut a wax ne ku yore di ko la ñi fi yore di danaa ko lim ci candidat yi ngeen xam ko ñëpp xam na ne ku yaru la kenn mësut a dégg mu wax kenn lu ñaaw ñëpp xam na ne kër diine it mi ngi leen di tabax di leen dundal di dundal li fi maam yi bàyyi woon kon kooku jàpp naa ne Ila Touba bii rek war naa taxaw murid yëpp wate ko beneen ba ci ñu dem ci rek ci ñeenti candidat yi bu dee ma Madické Niang moom ma Madické Niang moom day wër di taasu di dem taasu rek moom day taasu di dem te it jàpp na ni ci histoire Sénégal boo dee tudd ab warkat bi gën a rëy ci warkat yi boo koy jàpp boo ñëwee jàpp ko ndax ñëpp xam nañ fa mu eggoon ak Ablaye Wade moo nekkoon avocat Ablaye Wade moo nekkoon nijaay Karim Wade moom ci jëmmi boppam ba Ablaye Wade nekkagul candidat am moo nekkoon ab avocat am Ablaye Wade bi mu demee ba génn ci réew mi këram la nekk ñun ñi kenn ku ci ne ak ñun ba ci président Macky Sall àndoon nga ak Ablaye waaye kenn ku ci ne bu noqataal nan la wala ñu xeex la ba nga bàyyi Ablaye Wade beneen ba ci tegee mooy Sonko Sonko moom du ma ci soroy moom damay wax ne bu amee lim bëgg ci réew mi bu soobee yàlla kenn duutu dem ci ab barab di ko siyaare bu amee lim bëgg ci réew mi kenn duutu joxe addee bu amee lim bëgg ci réew mi kenn duutu nuyu nuyu ab sëriñ di ko màggal kooku gëm-gëmam mooy effacé li fi maam yi bàyyi woon ñàkk dundal li fi maam ndax wax na ne li ko gën a naqari ci àdduna mooy màggalu Tuubaa li ci dépasse ak li nit ñi def kon kooku moom bàyyi leen ko xel awaatu beneen ba ci tegee muy Idrissa Seck loolu nag dana am lu ma ci leeral Idrissa Seck kenn ku ne umpale na jaaroon ak sama waajur sañ Baara Doli moo ne ko woon mu ne ko fii kenn du fi wuyoo Mbàkke ci biir assemblée mi moom ci jëmmi boppam jëmmi Seex Saaliw Mbàkke Xaadimu Rasuul nam meloon ak nam seetloon sëriñ Touba cër ba mu ko joxoon muy sëñ Saaliw ku mën a xool jëmmi sëñ Saaliw joojee di am loo cay teg kooku ay waxam moom mu tudd waxa man jàpp naa ne Serigne Touba ji mujj ci kaw suuf ñu koy xool ba ci sëñ Touba sëñ Mountakha mi Cheikh Saliou Mbacké lam ci du du kenn yemut ak kenn ñu xam ko oh, guddi yi ñu toll am na ay audio yu ni def di wax diggante Murit ak Tijaan di indi wan nag moom mooy candidat Murit di nan bàyyi xel ne dañoo bëgg a nax de dañoo bëgg a nax de ndax ku jaar ci jaar yu mel nii ak fi mu jaar ak sama waajur mu doon lu xam jaar fa ak sëñ Xaadim Buso jaar fa ak sëñ Saaliw tey yii ci tey mu dee def ay ujo ñu koy génnee ñuy wax naan murit ak tijaan ca loolu moom moo ko commandité moom moo ko digal ay nit ñu def ko ngir yàq boppi murit yi ngir détourner xeli murit yi waaye murit yi kenn mënatu leen nax kenn du leen naxee ngir sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa lan jëm sëñ Tuubaa lan doyloo sëñ Tuubaa la ñu ne àndal ba faaw Sénégal Senghor yoroon na ku nekk ab chrétien ci sëñ Fallou dafa ànd ak moom réew mii di senegal Abdou Diouf nekkoon na fi ci sëñ Abdoulaye dafa waxoon wax jurëy ja réew mii di Sénégal Abdoulaye Wade nekkoon na fi sëñ Saliou wax wax jurëy jë bii bi Macky Sall yoree réew mi Serigne Sidi Makhtar moo ne ko demal bàyyil place lu bi ngeen di def ay tournée demal ngeen ku wuti mais nu Macky moo ci dem wuti yàlla jox ko muy réew mi ñëpp xam na ne sëriñ Serigne Mountakha avant muy nekk Xaadimu Rasuul ci mujj sëñ sëñ Sidi Makhtar ci màggal gi mujj mooy la ko waxoon ne ko yaa ngi liggéeyal sëñ tubaa ci sëñ tubaa gis na ko demal ku la fayu ci sëñ tubaa dana la fay te ñëpp xam na ne sëriñ tubaa am na fay ñëpp xam na ne yi ne barki démb ci màggalu tubaa gi sëriñ Muntaxa wax nag ci kaddu Seex Mamadu Basiiru Abdou Xaadir na ko boole raal ak sëriñ tubaa demal demal ci sëñ boole naa la moom lan ngeen gën a bëgg ci seen mooy ñu bàyyi leen sëñ Tuubaa lan ngeen gën a ci seen adduna xalifa di murit sëñ bi fi nekk na leen naa leen ne sëñ Tuubaa kenn ku ne loolu ngay wër